xarit yi si naan suñu émission confrontation ci Thiès une fois que Thiès TV tey ñu war a toog rek def euh, taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom mooy xew-xew yi nga xam ne moo xew fii ci biir Sénégal rawatina ci biir Thiès benn dëkk ñaari gaar ñu toog nag ci sama loxo ndeyjoor ma toog ak Mohamed Mbaye nekk responsable jeune ci parti réew mi bu euh, président Idrissa Seck ma toog ci loxo càmmoñ bi ma toog ak Assane Mbaye nekk responsable politique ci COSER di parti bu APR bu président Macky Sall ak également Ndiaga Diaw bi nga xamante ne moom responsable politique la ci parti démocratique sénégalais bu président Abdoulaye Wade dañuy bàyyi ki nga xamante ne rek moom mooy euh, Mohamed Baye mu nuyoo ak mbokk xarit bi ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV Mouhamed asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokk Thiès Info maa ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi déglu émission bi. di di sénégalais di Thiessois aussi et vraiment may ñaan té ba bi té ba bu neex inshallah mo rabbi. wala asan lay nuyo bon ñu ñepp ñi ñuy di jiital ci nuyo aussi kilifa diiné ak kilifa aada yi yépp di leen nuyu daal. Jaga? Euh, aussi sama naataango yi ma bokkal euh, jotaay. jërëjëf Omar maa ngi leen di nuyu nuyu waa Thiès info yëpp nuyu Thiès waa ak sénégalais yu ñuy seetaan yëpp. Euh, profito également nuyu suma xarit yi suma doomu ndey yi ma bokkal plateau bi suma frère Ahmed mbay ak euh, Assane mbay yi nga xamante ni ñun ay ndaw lañ nekk Thiès bokku leen di lu jotaay bi te yaakaar ne liñ fiy wax njëriñ lay nekk pour sénégalais yi njëriñ lay nekk pour Thiès waaye. alors euh, li nga xamante rek moom la ñuy ñëw dem ci rek moom mooy situation politique li nga xamante ni au niveau local fii tey ci biir Thiès. gis nañu sort yu bëri di am euh, benn sort bi nga xamante ne Ahmed Mbaye wax na ko euh, di wax euh, ci li nga xamante ne rek mooy ma également ak Idrissa Seck ak rek ñi nga xam ne mooy woy politique yi li ni mel en tant que parti bu réew mi te Ahmed nekkoon kenn lan nga ci yaatu. waaw tout d'abord sama sama sama mbokk yi nga xamante eh, moom jàpp naa ne borom gémmiñ luy naaj jàpp naa ne du wax jàmm. te képp ku dëkk Thiès di def politique fii ci Thiès tey boo gisee Ameth Mbaye da ngay dégoûté wu ci ci ci ci def politique. ndax diggante président Idrissa Seck ak président Abdoulaye Wade am na lu fi jotoon a jaar ci seen diggante ñoom ñaar lu dooree depuis 88 ba ñu ñëw ba 2004 ba ñëw ba 2018 jàpp naa ne du Ameth Mbaye moo mën a taxaw di jël ay insa insalubrité jëf yu ñaaw di ko jël di ko teg ci dara président Idrissa Seck di ko wax ci digganteem a le président Abdoulaye Wade moom may fàttali ni moom amel lay tey su demee ba nekk ci mairie bi nii ñu jël ko comme mu nekk directeur man Mouhamed Mbaye mën naa ne man maa ko fal parce que bi ñu demee bi ñu defar liste yi nga xamante ne ñu ngi jëm ci élection locale 2014 man la amee Mbaye toog un jour daam ci ni ma Ameth Mbaye nekkul ci benn liste. conseiller ci parti Rewmi bu S. pour mu nekk conseiller pour mu nekk conseiller municipal dañ ko dindi ci liste bi bokk ci liste bi. moom Ameth Mbaye. moom Ameth Mbaye bokk ci ben liste. booba mi ngi wër di wax ne way Mamadou Diagne Fada dafa bañ le président Idrissa Seck bëggu ko donc moom moo ko woo ne ko way bu leen bokk ak Idrissa Seck coalition mu ne ko ñun Idrissa Seck la ñuy àndal ci coalition bi. ñuy wax loolu après bi ma amee waxee loolu nag daanaka wax ma ni ma Ameth Mbaye bokk ci benn liste ma mère daal di ne ko. yëkkati sama téléphone woo Ameth Mbaye man maa ko woo téléphone ma ne ko Ameth mu ne ma waaw ma ne ko na nga def mu ne ko est ce que yéen nga ci benn liste mu ah ko waaw mu ne ma lu def loolu dama lay wax rek ni la nekkoo ci benn liste mu ne ma non loolu ma ne ko non li ngay da ngay wóole président Idrissa Seck ko ne ko bokkoo ci benn liste pourtant ne moom ni ko président Idrissa Seck lebal moom fay ko ko man mu ko Ameth Mbaye moo wala président Idriss Seck bi mu ko woowee wax ko loolu ci saa si lañ dirige convoqué réunion dirigeant cyber campus à vingt et une heures keroog dafa ne Pape Diop taxawal mu taxaw mooy ko waxal lu tax ñu dugg ci seen liste xam ngay topp waa PDS ak alliés yi nga xamante na ñoom la ñu àndaloon ñëpp. coalition ànd defar Thiès taal la ci boppam keroog moo jóg daan ne le président Idriss dama lay garantir ni la képp ku dugg ci liste man dinaa la ko gérer. mais Talla Sylla wax na ko ci yéen seen i antenne wax na mu ne man xaw ma woon kuy Ameth Mbaye le président Idrissa Seck moo ma ko dénk ñun ñëpp ñu koy dégg. très bien euh, rek ki nga xamante ne moom mooy euh, Assane Mbaye nekk responsable ci COJER di convergence des jeunes républicains mu àddu ci li nga xamante rek moom mooy xew-xew bi fii ci biir Thiès ginnaaw kàddu yooyu nga xam ne Ameth Mbaye yëkkati na ko ñu président Idrissa Seck euh, yàgg na teg lu ñaaw ci deru président Abdoulaye Wade ba mu nekk coow loo xamante ne. Euh, nit ñi ku ci nekk yaa ngi ci àddu Ahmed euh, Assane lan ngay àddu ci loolu. bon man nag euh, sincèrement parler dégluwuma émission wu Ahmed Mbaye par rapport ak li mu wax Idrissa Seck wala li xew mais li ma ci mën a wax daal mooy li ma doon wax ci yeneen jotaay yi rek xeexu Talla Sylla ak Idrissa Seck indirectement viale les maires yi nga xam ni moom lañ taylee dëkk bi. ceesuwaay rek ñoo ciy perte parce que tardement lay indi ci dëkk bi beneen bi ci des mooy par rapport ak euh, Idrissa Seck yàgg naa teg ci deru Ablaye Wade lu ko lu ko naqari loolu moom c'est une réalité te presse baa ngi fii audio yaa ngi fii parce que Idrissa archive yaa ngi fii parce que traité na Ablaye Wade de tous les noms donc te sooy xool déclic bi nga xam ni moo fi jëlee Ablaye Wade sa Seck moo ko déclenché dévolution monarchique du pouvoir le coup d'état rampant CD yi nga xam ni doon na tuumaal Ablaye Wade ni denc na ay CD numéro un numéro deux yooyu yépp traité Ablaye Wade de cadavre yooyu moom yàgg na fi. loolu c'est une réalité te yàggul parce que loolu diggante 2000 la ba 2012 bien vrai que on était encore plus jeune mais on se rappelle de ça donc kàddu yooyu tey peut-être Idrissa dafa bëgg a clin d'œil waa PDS électorat bi ñu am pour ñu jàppale ko parce que mu ngi dérouler benn plan d'action politique di communique def benn communication politique léegi nag bëgg na naxante ak Ablaye Wade ak waa PDS pour que ñom ñu jappalé ko mais limay conseiller waa PDS Idrissa su le pouvoir bi il va faire deux mandats de 10 ans te tey jii ñun muy réew mi muy APR muy PDS ñun ñépp ñoo bokk ben famille politique donc Idrissa il na day def ay jeu rek pour clignoter ñom jaga ñu ñu verser ko li mais dal xam naa ni daal yàgg na teg ay kàddu yu ñaaw ci Ablaye Wade tey nag peut-être mën na koo regretté rëcc ko loolu nag digganteem la ak Ablaye Wade ak famille politique bu Ablaye Wade man daal loolu laa ciy wax. alors très bien jaga jaga jaw bu PDS tey kàddu yi nga xamante ne rek euh, kii yëkkati na ko di Amed Mbaye wax ci ba wax appartenance am ci parti démocratique euh, sénégalais ak rek kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko yow lan nga ci yàddu jaga. Ah, jërëjëf Omar maa ngi rafetlu sa question xam nga man. Euh, damay def politique ak principe principe ci politique beaucoup na ci attaque crypto personnel dama contre ci politique manam djog rek tok ñu lu ñu nga peut-être chef de parti la wala yena y en bi wala yu nga di wu directement et puis avec la façon Euh, loolu dama ko contre ci politique beneen bi ci des suñu réglement intérieur u parti dafay tere nga bokk ci suñu parti ñuy dem élection yor suñu list di wuti yow nga ànd ak keneen maanaam soo ko defee réglement intérieur parti bi dañ la yow bokkatoo ci parti bi léegi nag kiy def sorti bi moom mooy xool ban étiquette lay jël pour sortie bi am portée parce que su fekkente ne dañu ko jël ci cadre fal askan wi du am porté parce que xam nañ ne fal askan wi day xeex ak Idriss Seck donc ce qui fait que dañuy jël étiquette parti démocratique sénégalais pour que sortie bi mëna am doolé ce qui fait que très franchement avec tout le respect que je lui dois d'accorduma ci sortie bi sortir ci la wax benen bi ci dess il n'est pas un responsable du parti démocratique sénégalais c'est mon frère sama xarit la dañuy waxtaan man ak mom mais mom sama xarit la mais. bu ñuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxante dëgg te yàlla tax parce que yàlla dëgg la bëgg beneen bi ci des bu ñu jàppee ne politique àdduna la yam dañuy nax suñu bopp moo tax man débat yi li tax ma fonk ko mooy buñ ci toogee di wax rek nañu wax dëgg nañu wax aussi liy jëmale sénégal kanam gis nga président idrissa seck même su fekkente ne dafa am ay antécédent ak abdoulaye wad fan lañ wax yàlla suñu borom sax dafa tere ñetti jullit ñu xuloo ñetti fan te jubóowuñ mais ñun bu ñu sañoon arène politique bi ñi ci nekk ñëpp te war a ànd dañuy ànd te war a ànd ñun opposition la ñu nekk Idriss Seck opposition la nekk dañu war a ànd affaire bi du doctrine bi libéralisme wala socialisme loolu léegi jaxasoo am na. tey Macky Sall ak ñoom Tanor ak ñoom AFP ñu ànd ñoom ñooy gouverner ñoo yor pouvoir. waaw xam nga ñoom ñu ngi ànd. <laughs> Mhm. donc ñun ak Idrissa Seck ak ñoom Modou Diagne Fada ak ñi nekk ci opposition bi aussi ñun dañoo war a ànd. léegi nag ci biir ànd boobu su fekkente ne dafa am ñoo xamante ni ànd bi arrangé wu leen. parce que ñoom tànn nañ seen daal muy Macky Sall xam taala si la wax na lu leer nañ moom moo fi génne benn way bu yàggul di xas Macky Sall donc tey moom moo ñëw di wax ne dafay jàppale Macky Sall en 2019 léegi ñaari wax yooyu ban lañ ci war a gëm way bi lañ war a gëm wala damay jàppale Macky Sall en 2019 entre temps lan moo changé entre temps lan moo fi soppeeku réew mi bu gënul bu gënul a metti mettit mi wàññeekuwul nit ñi suñ gënul sonn coono gi wàññeekul lam doon way su gënul yokk wàññeekul donc en temps lan moo fi changé bëgg naa nekkaat maire en deux mille 2019 te loolu mi ngi ci loxo suñu borom ce qui fait que euh, euh, dama bëgg bu ñuy waxtaan maanaam ñu koy ñu koy ñu koy teg ci axe vraiment man euh, nawuma yuy xeetu sorti donc man alors très bien ci wàllu boobu rek ci communication action parce que politique euh, président euh, ci ñaar wala ñetti occupé médias yi ñu ni sorti na sorti pouvoir bi parce que ñu bëri ñu ngi jóg mu nekk ay ci biir loolu tey Idrissa mi nga <clears throat> parti euh, bu réew éventuellement ñooy jàpp ngeen ni ci loxoom lay mucc tey li nga xamante ne jóguñu ko rek mu nekk ay jéego yéen lan moo ci seen gis-gis. waaw tout d'abord damay ñëwaat tuuti ci sama frère parce que léegi dafa wax waxu coup d'état rampant loolu jàpp naa ne seen xarit Mahmoud Sall moo ko doon moo ko doon wax. du ko jël wax ñu ñaaw di ko teg ci kaw dara Idrissa ba bëgg ñoom suñuy wax ñu xoolaat tuuti anam mais nag comme xam naa ñoom ay politiciens yu bees yi ñoom 2012 lañ leen commencé xam euh, moo tax ñuy juum ci yooyu quoi ma ma ma retardé sama sama sama frère. mais ki ci gis moom dama lay wax yow yaa ko wax léegi bëri ko ci bàttal fi ñu toll nii te it Sénégalais yi ñu ngi ñu ngi commencé di xam la personne de Idrissa ndax li xawoon na gàllankoor yoon bi moom sax wax na ko wax na wax na ko barki dem mu ne l'éclipse

dugg Thiès mu dem ci Abdoulaye Wade ni ko wéy Idriss Seck leer muy liggéey Thiès mu ne ko mu ne ko bu àggee sa chaise bii nga toog da nga fiy jóg Abdoulaye di ñëw ba ci ZAC bi contournement contournement bi Idrissa def jaaree ko yoonu Polytechnique lamp yi tàkk mu jaar dem ba ZAC ba daal di taxaw daal di may xaar bi chauffeur bi tourné chauffeur moom ko joxoon moom ko joxoon moo ko joxoon kon diggante Abdoulaye ak Idrissa Macky Sall moom ko yàq loolu koy jaral ñu ciy tey bi mu ko yàqee nag yàlla def ko mu nekk président moom président bii ko yàlla def xamul ne dañ ko fay teg pour mu régler ay situation ndax moom duma gi ci moom lay ci moom lay wëlbatiku jëm léegi nag comme xam na ni Sénégalais yi génn nañ ci moom ndax Macky Sall yàq na njàng mi yàq na napp gi yàq na mbay mi na wér gi yaramu doomu aadama yi léegi lan la desee bët bi dem indi na nga gis Idrissa dem laaj ko ci affaire moom moo fi taxaw dem Mauritanie di wax ne dafay dem pour wax suñu gànnaar boobu booy boobu ñu rey mu dem ba dem fa il soog ñu loolu lay lijjanti mu dem fa di wax waxu waxu waxu waxu ay accord di signé ay enquête mini ay ay ay ay ay rapport pour pour pour pour ak wàllu gaz bi donc Macky Sall loolu mu def yëpp yàq ko ci diggante Idrissa ak Abdoulaye Wade donc nag tey Idrissa mais même lu mu am si seet ko Abdoulaye Wade ci ay jafe-jafe yu jaaroon ci nit diggante ñaari nit yuy ànd sax c'est que ba njëkk laa mel ñëw dëkk des fois ñu laale asama la ñaari ji yu ànd Idrissa dañuy ànd ak Abdoulaye bi boobu il n'avait même pas 11 ànd ak Abdoulaye Abdoulaye di ko nag mu dem ba benn moment benn nit ko indi xam naa li may wax président Macky Sall. maa di toog ci garabu kooku gi. di wax Idrissa moom ko njëkkee wax ne ko dama lay ko mu ne ko bés boo deewee dem àddina na ko non non bu waxati loolu parce que àddina yow moomoo ko yàlla moo ko moom yooyu yëpp fekk na ni fii. alors euh, très bien. donc <laughs> su demee ba xeex moment boobu yëpp mu xeex ko ak ak ak ak ak ak du ne la ko xeexal parce que na Idrissa ne gis nga tali bii. tali di diggante primature ak présidence mu ne ko waaw mu ne ko ëpp na sama diggante bi yow parce que ñii yaata ñi ngi fi toog te boobu Macky Sall Abdoulaye di waxal tey jii nag bi loolu amee Macky Sall def tout parce que dafa gëmoon ni Idrissa bu jógee mooy toog moo tax bi mu ñëwee fii Thiès di jaale si Idrissa ci day Amina ñu ko damaa bëgg nga bal ma àq Idrissa dana ko ameloo ma àq parce que tout simplement tu agissais sur l'ordre d'un maître da nga doon digal ngay def. yow da ngaa foogoon ni mën nga maa remplacer mu ne ko yow jaraloo ko Ablaye Wade keneen ak keneen jaraloo ko ko. tey jii nag bi mu ba leer Macky Sall ñëw ci Idrissa dafa dafa ñëwoon ci Idrissa pour ànd ak Idrissa Idrissa moo ne ko non baatuwaat toogal ci biir nga xeex Macky Sall daw génn bi mu génnee. alors euh, très bien dañuy ñëw rek ci Assane li nga xamante ne moom wax na ko léegi yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci ñàkk li nga xamante ne toxu dëkk bi. maanaam Sénégal nee na fépp ay métti wàllu éducation wàllu santé wàllu pes bi ak yeneen yi nga xamante ne rek moom junj na ko mais également junj rek euh, président Macky Sall bi nga xam ne mooy seen leader euh, fi mu doon toog ci point E di ko yónnee ba tey bu yore lenge yi tey yaakaar ni euh, bëri na entre candidature Idrissa Seck mais également dinañ ci ñëw bu Karim Wade li nga xamante ne moom mooy raam Assane lan ngay àddu ci li bon moom li ma koy njëkk a tontu moom daf ci ci commencement wax li mu wax ci fin bi daa weddi boppam. parce que nee na bi mu bi Macky Sall jaalesee Idrissa Seck dafa ni ko yow da doon asir ci ay ordre kon kan moo doon joxe ordre yi Ablaye Wade la kon donc day dellu si sànq ci débat bi fi ñu ñëwoon mooy ñoom dañu bëgg a def lu tout pour récupérer électorat PDS féete ko ci seen bopp bi ci des mooy euh, fekkee. Macky Sall moom ba muy ñëw ci Ablaye Wade du Idrissa Seck moo ko indi PDS Ousmane Masseck Ndiaye moo indi PDS Macky Sall te it ba ñëwee du du n'importe kii la fa nekk parce que moom bi PDS taxawee di PDS taxawee jël pouvoir moom lañu jël mu jiite tous les cadres libéraux benn Macky fi mu njëkk a défier sa Seck bi mu nekkee ministre de l'énergie et des mines Idrissa Seck nekk premier ministre di ñëw Thiès jël avion parce que moom dafa bew ba mu yore pouvoir jël hélicoptère di ñëw tiim àllu kaaj ak carrière yi mu bëgg koo tëj pour l'intérêt de ses amis naar Macky Sall nekk Fatick ci semaine ci weekend mu bind pour que ñu tëj carrière yi Macky Sall bañ ñoom ñaar daje nañ ci cybercampus ci dimance ba ca topp Ablaye Wade war leena a ci conseil des ministres jël rapport yi té mais la Macky Sall bëggoon étant ministre de l'énergie gëna a xam euh, Idrissa Seck li xew parce que mom c'est un ingénieur génné école des géologues donc bokk te Idrissa Seck mi nga xam day théoriser ay diplôme yoo xam kenn ta xam ci ban école la jógee donc ñu ay niveau te Idrissa Seck la mu tële de 2000 à 2004 lepp lu Ablaye de vision bu mu am. Idrissa ni c'est de l'utopie Li montagne. de 2004 à 2007 Macky Sall bi muy nekk premier ministre autour APH bi moo ko Abdoulaye Wade ñoo tegandoo pierre. pierre poste premier pierre. aéroport Madame, les pour travaux yi mag ay Abdoulaye Wade sumb yépp yàlla dogal na ci loxo Macky Sall la démarré parce que vision Abdoulaye Wade moom daf ko exécuter na ko Abdoulaye Wade bëggee woon donc kon ñaar parce que nek 2000 ba 2004 on a présenter bilan Qui de 2004 à 2007 mën nañu le bilan demal Ablaye Wade campagne gagné le premier tour kon mom am na mérite par rapport ak que wad bi nak de 2012 avant 2012 man ñi ñi marche ni courant amul étant tailleur j'étais le chargé de communication du regroupement des tailleurs de la région de Thiès. xam naa li may wax bu baax tey jii mënuñoo am coupure de cinq minutes mënta am fii ñu toog muy Thiès mooy capitale régionale de l'énergie te 2012 ba 2000 ba fii ñu toll centrale Sendou centrale Taïba Ndiaye Mboro Mérina Ndakhar Malicounda loolu yépp ci sunu nguur lañ ko defee tey jii ñun dañuy prévoir jaay courant dëkk yi ñu dendal mix énergétique bi liñ ci def dafa bari

qui reste et demeure le candidat du PDS et va se présenter en 2019 donc loolu moom dama bëgg ñu close comme mu féetee Benen beneen bi ci moi d'abord am débat man du mu si Macky Sall Idrissa Seck fi ñu jaar bi ñu nekkee ay jeunes defante woon ak Yoyu débat de mu mais li ma mën a xam ba mooy sama euh, frère Assane waxna tout à l'heure mon est nekkoon président association des tailleurs ñom ñoo doon marche à l'époque du tal fi ay pneu chargé de communication donc nous ñoo saccagé saccager fi ay édifice public doon toj ay Senelec di tal ay pneu moy les immeubles de l'électricité eh, gis nga ma fi may wax ak yow programme biñ ñu un muy plan tàkkal moo jur tey ñoom ñu taxaw di wax ne dañuy jaay électricité. waaw dama non dama ne la c'était un programme xam nga programme nu muy demee. <laughs> da ngay teg def terrassement def fondement yëkkati kuule tegaat beneen bâtiment ci kaw soo paree raax soo paree peinture wala nga carrelé yu mel noonu kër gi soog a fonctionnel. <laughs> yow xam nga ni c'était c'était un programme bien défini par Karim waa loolu moo tax bi ngeen ñëwee changé wu leen ko ba fii may wax ak yow nii Sénégal électricité prend tàkkal moom moo koy moo koy alimenté muy benn. beneen bi ci des à l'époque ñun ñu ngi doon jënd baril pétrole bi à 150 dollars aujourd'hui nous sommes à moins de quatre maanaam normalement yi li nga wax ci daara yi waroon naa gën a wàññeeku électricité non seulement coupure warul am de yow wax nga ni coupure amul te effectivement coupure mu ngi am melul na mu meloon mais coupure warul am parce que l'homme ñu doon côté, côté wu leen ko yéen ce qui fait que lolu vraiment ñun tay fiñ ñu doon xaar fiñ ñu leen doon xaar Assane mooy tay nga ñëw nga ni ñu coupure amatu fi beneen bi ci des carburant bi comme que 150 dollars la doon jaar te carburant bi prix bi day yéeg di wàcc selon litre baril pétrole bi ngeen ñëw ne carburant bi xaaj nañ ko ci digg bi parce que 150 dollars lañ ko fi dem nañ ba à un moment donné eggul won sax 30 dollars kon mbir yi na ce qui veut dire que état Sénégal. sur production mondiale. manam am nañu alal judul jeex ci carburant bi ci ci sur le dos des Sénégalais donc ce qui fait que tay euh, président Macky Sall heureusement y a ay jeunes amna ñi un mérite parce que mérite bi ñu am ñu ngi jàppale di soutenir di défendre koo xamante ni tey ñoom wér na leen ni ngor moo leen ci bàyyi ak maanaam téye bañ a bañ a wor. maanaam amuñu ci gëdd quoi. non non am nañ gëdd non ñoom gis nañ seen bopp am nañ ci gëdd mais dama ni ngor moo leen ci téye sinon ñoom xam nañ bu baax que ni kii ñuy soutenir doxalul réew mi euh, du dem ba pare te élection 2019 moo fi mënul sax bokk ci ñi nga xamante ni dañuy dem deuxième tour donc moo tax nag Assane ma lay invité comme yow suñu xarin nga. Ah, euh, élection yi ñu jëm si. Mhm. man nee naa la dañu am candidat ñoom. Mhm. suñu candidat Karim wat lan la tudd. Mhm. moom la ñuy soutenir moom lañ bëgg mu gañe mais maa ngi wax ne élection yi ñu jëm si. élect du dina dina wuute ak élection Idrissa Seck bu 2007 waaw.

Euh, Ameth naka ngeen di àddu ak situation bi ñu gis ak Bamba Fall bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokkoon xeex ñi te ñu gis ni Bamba am na benn tànk ci biir APR waaye am na benn tànk ci biir euh, parti socialiste. non man moom d'accord ma ak ñi wax ne Bamba Fall dafa dem dafa dem APR man dama gis ne Bamba il est émotif rek Bamba émotion lay waxee comme ni mu waxee woon ne Idriss Seck mooy suñu Khalifa Sall il est émotif mais damay ñëwaat tuuti ci ci li Assane wax sànq xam nga. ñoom nag ndeysaan dama leen yërëm parce que 2012 la ñu ñëw ci politique mais est ce que ñoom 2012 lañ ci ñëw non sérieusement sérieusement parce que ñii kenn xamu leen woon ci Macky Sall ñeen xam nañu commencé exister ci politique te loolu moo yàq politique Sénégal xam nga suy wax ci Macky Sall mu défi Idrissa daf may def ay ree parce que Macky Sall ce qui me est certainement Idrissa moo ko defoon directeur Petrosen ñëpp Macky Sall poste bu mu mës a occupé ci nguur Abdoulaye Wade Idrissa moo ko def ba mu des premier ministre parce que moom Macky Sall ñëw na fii ne Idrissa Ba maax ñun ñëpp ñu fekke ko ñun ñëpp ñu taxaw mu génn may chauffeur yi xaalis génn taal otoom dem peut-être nag comme dem na ñu dem élection mu wor parce que nag dafa signé woon hôtel Ngor Diaram ñun ñëpp ñu nga fa woon mu signé ni du dem campagne tant que Abdoulaye Wade retiré wul candidature am ñun ñu toog ñun ñëpp góor yëpp toog moom kese moo ci rocceeku daw dem ci àll bi commencé campagne te ni mu ni mu campagne loolu résultat yi watee góor yi nag ñoo toogoon place de l'indépendance xeex te moom moo ko wax léegi nee na Idrissa moo nekkoon à l'œuvre li nga xamante ne tey moo tax Abdoulaye Wade daanu kon ñun dañoo toogoon foofu xeex mais ñun bi ñuy xeex dañ koy teg ci ay principe xam nga en plus on est dans un parti libéral tey ñun ci li ñu nekk mooy liy doxal Sénégal Idrissa mënul bañ a taxaw fenn di wax ne Abdoulaye Wade mii kat moo defar Sénégal parce que Abdoulaye Wade bi mu opposé def na fi 26 ans d'opposition

li li ñu privé diplomatien mooy xam-xamam bu rafet ak li mu yéene woon Sénégal ba ci aéroport bi bërki dem ñu loon werante ni Macky Sall moo ko fi def ci seenu coxor ñoom te ku ne xam na ni AIBD Abdoulaye moo ko fi def Macky Sall nañ ñu wax lan la def Sénégal lu dul jamñaaju gi nga xamante ni vision bi weesuwu ko tey nag Idrissa ba ngay faral di wax Abdoulaye nañ dem nga jël palais bi yóbbu ko Matam wala nga yóbbu ko Bakel wala nga yóbbu ko Vélingara pour mu xam coono Sénégal yi nan la woon pour ñu mën koo mën mën koo gàttal ko. très bien Khalifa Sall rek ñëpp xam ne ni nekkoon Khalifa Sall moom ci boppam ba jour bi nga xamante ni ci lañ koy wax ne ko dañ lay téye ci lay doog a gëm day dem kaso parce que musu ko woon a xalaat. préparé wul préparé wul woon ay arrièram ci loolu parce que jàppoon na ni xam Xalifa dafa yaru soo ko xoolee gis ko ni ay xam ne kii c' su quelqu'un de suñu avancé ci loolu Xalifa di doxal di liggéey mairie Dakar pourtant état Sénégal nee na ci gémmiñam état bi woo na ko ni ko wéy da ngay rejoindre da ngay ñëw ànd ak ñun Xalifa ñu leen tollaguñu foofu ci affaire caisse d'avance bi Macky Sall ci la jël ñoom Abdou Mbow ak ñii ñëpp jëndal leen ci ay verre Macky Sall moo recommandé ah léegi am ko def am na ko di baaxoo léegi ba di baaxoo voilà attention ki ngeen xam ni mooy toog boobu di baax sama yoon boobu di baax di baax sama dara dara sama xarit la xam nga ah jël ci ay ñeneen ak ñeneen dimbali leen ci ba ñu koy wax caisse d'avance bi baat li muy kon tey tanal dee moo jël Khalifa Sall moom pour dëxal ko pour wax la mu gi nga xamante ni nekk ci biir politique très bien léegi ni ko sama frère nga ko waxee rek. politique ku jàpp ne ci kaw suuf la yem yaa ngi nax sa bopp. ndax yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy ñëw yéefar yi ñoo ko tudde woon al di ko dénk. bi mu demee ba dëggal boppam ni yàlla moomu yónni ci lañ ko tàmbalee xeex muy ay mbokki boppam Macky nag ñun bi ñu dëggalee suñu bopp Khalifa Sall dëggal boppam ci la ko tàmbalee xeex mais euh, euh, euh, ci li nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall situation ak Bamba Fall ak rek bon li may njëkk a tontu rek mhm. man souteniruma Macky Sall de mhm. man dama bokk ci ñi formé l'alliance pour la république fii ci biir Thiès souteniruma Macky Sall Sénégal laay soutenir te damaa gis ni mu ngi koy teg ci yoon moo tax ma continuer di ànd ak moom su mandaam jeexee incha allah kan commencé soutenir Macky Sall kan nga commencé ànd ak moom 2009 laa commencé ànd ak le président Macky Sall amul compromis man ak Ndiaga ak élage Hadj Madaba Wade Ndiaga nekkoon na PDS wut si ñu ay yoon yooni yoon te boobu Wade ele mu ngi woon nag alal ju judul jeex Karim wàdd alal judul jeex kër Pa Bakar Diagne fii ñëw nañu def lu ne pour ñu bàyyi Macky Sall ànd ak ab Ablaye Wade mais boobu suñu ngor mayuñu ko ngor googu ñu téye woon nag ba ñu wanee ay million ñu sàmm ko ngor googu du ñu agsi ba fii ñu koy yàq noonu <laughs> ñun ay jullit lañu te li ñuy def ëllëg ñoo bëgg su ko suñu borom nattee mu fay ñu man Sénégal laay soutenir à travers l' alliance pour la république. waaw li ci des. mooy euh, Ahmed dafa ni man bañ ma xamee Thiès yàgg na de. ak ay yàgg dañ maa xamul woon ci politique. waaye xam nañ ma ci kër Sëñ Tuubaa ma am fay ay cër yu mag xam nañ ma aussi ci région waxuma la région de Thiès mais Sénégal mouvement national des tailleurs du Sénégal. Mhm. man lu ma fa doxalul du dox. lu ma fa doxalul. du dox ndax amul programme bu ñuy teg. te ñëwuma dugal ci sama loxo à 100 pour cent pour mu àgg. soo demee fédération ñi Kër Serigne Mbacke Madina nationale. man maay communication bi. te loolu ci bu rëy la ci biir Daaru Xuddoos li ci des. mooy Macky Sall bi mu wax ni bi ñuy dem hôtel Ngor Jaaraama dafa war warul de dafa doxee ci ndigal Serigne Sidi Muxtaar moo ni moo ni woon bu mu gisati kenn ci mbedd mi na nañu dem campagne yi parce que ñoo dajee woon ni constitution bi lu mu àtte nañ ko nangu constitution bi àtte woon ni Ablaye Wade candidat la sëñ Sidi Mokhtar ni bu bëggatul gis koo xam ni d'accord nga ni ci njabootam nga bokk moo la ci mbedd mi demal campagne mu départ dem dem ci sëñ Sidi mu ñaanal ko mu dugg ci réew mi yàlla jox ko réew mi donc loolu lañ ciy wax affaire xalifa Khalifa Sall nag caisse d'avance fonds politique loolu mu ngi ci loxol yoon yoon a ngi àtte dans quelques jours dinañ jox délibéré lu nekk ci loxol yoon man duma ci discuter jox na ci kii joxu ci kii en tout cas procès bi ci ci penc lañ ko defee tëjuwuñ ci néeg di def procès am na ñu koy défendre am na ñuy défendre ñeni ko yaa jël léegi nag yoon moom juge mooy àtte mooy xool digganteem ak boromam liñ ko jiiñ dëgg la wala du dëgg mu àtte ji man duma ci wax mais li gën a flagrant Idrissa Seck bi mu jëlee pouvoir fii la nekk cinéma amitié bi muy fonctionné arrêté lu Mbaye ñu indi ko fii tribunal tëj ko ci ay tappale biñ ko nommé 2004 novembre 2004 premier ministre ci la bàyyi lu Mbay Juuf lu taxoon mu tëj ko pour que mu mënoon a jël miir yi. maanaam ba pare stratégie politique la stratégie politique la ba pare taxaw ni moom dafa dafa bëgg a semaine chemin d'affaires ñu bañ. Idrissa Seck moo tëj moo tëj moo bokk ci ñi rey chemin de fer. principal acteur la ci li rey chemin de fer. moo tax bi muy def tournée ma ne koy war ngaa def tournée rek dem fépp mais Tamba moom nag faa ruusoo na dem foo xam ne raay bi moo ko daan dundal Idriss Seck waru faa teg tànkam te tournée bi xam nga doon na day def tournée dans le sud ba pare di di léeg-léeg mu dem Dakar fekkee ji projet Khalifa Sall bi mais loolu lu ko may tali bi muy daw diggante Tamba Vélingara Vélingara Manda Douane Manda Douane Pont Abdoul Diallo Pont Abdoul Diallo Ziguinchor tali yu bees yooyu ñu defar foofu sunu régime lañ ko defaree Salémata Kédougou sunu régime lañ ko defaree Kédougou Tamba sunu régime lañ ko defaree Tamba Kidira jour boobu mu nekk moom su ta su mënee daw am confort ndax moom ñemewul coono. loolu c'est grâce à Macky Sall bi ci toog mooy. man dama ko conseillé woon ni ko may ma tuuti ma wax. dama koo conseillé woon ni ko sa portable boobu dëkk boo fanaan mën nga koo branché ndax def nañ fa courant électrification rurale. dëkk boo dugg tamit doo daw ci gànnaaw ci raaraa ngay daw. balaa ñuy kii ñu jox rek jaga euh, jaga ci li nga xamante ne rek euh, wax nañ ko ci en terme de réalisation. ak tamit li nga xamante ne mooy ay manquements yi nga xam ne concerné ko jaga la nga ciy àddu. waaw xam nga euh, li Assane wax tout à l'heure par rapport ak réalisation route yi effectivement am na ci yoo xamante ni ci. régime Makissal Macky Sall lañ ko c'est-à-dire que euh, peut-être que l'angle angle angle <laughs> angle Idriss bon wax né su un confort bo a et eh, Kidira ma Dakar c'est parce que Rudy mais Rudy aussi faut pas oublier que budget la milliards yo sénégalais voté pour ñu ci suñ ko ci defarul rek dañuy def détournement d'objectif mais li ëpp solo tey li nga xamante ni man bëgg naa vraiment ñu koy bàyyi xel mooy dañu jub ay élection te tey lu ñu mënti wax Khalifa Sall potentiel candidat la tey Khalifa Sall am na lu mu représenté Dakar am na lu mu représenté egalement ci biir réew mi man pour man rafetul sax ci gis-gis ci gis-gis rek laa rafetul ñuy dem tey ay élection ñi nga xamante ni tey ñoom lañu jàpp ne war nañ mën a def différence bi ñu bëgg leen a éliminer. muy Khalifa ak bokk na ci xalifa Sall bokk na ci Karim Wade ba pare maa ngi dégg maa ngi liir ci presse bi fan yi ñu ne am na lu ñuy waajal sa Seck <laughs> maa ngi koy liir ci presse bi waxuma am na wala amul mais dama ni maa ngi koy liir ci presse bi donc ça veut dire que man li ma wax dafa leer. te mënuñu accepter Sénégal ak fi ñu toll ci démocratie di dem ci ay élection yoo xamante ni président bi moom mooy tànn ñi muy demal élection loolu moom euh, fii laa koy wax mu leer mooy ci élection yi ñu jëm suñu bëggee réew mi am jàmm nañu bàyyi ñi nga xamante ni yoon may na leen ñu participer ci élection yi ñu bàyyi leen ñu participer ci élection yi su fekkente ne nag Macky Sall loolu daf ko daf ci taxaw gar ci bakkanam pour ne day laxasu ci nguur gi pour am deuxième mandat su boobaa na jël ay responsabilité lépp lu arrivé Sénégal ñoo xam ne moom Macky Sall moom la parce que tamit nag lañu mayul woon ab Wade may ñu ko ab du du ñu ko may Macky Sall. alors euh, très bien dañuy ñëw nag naa euh, ci li nga xam euh, ne mooy Thiès Thiès am na ñetti mairie muy mairie Thiès ouest mairie Thiès est mairie Thiès nord. Euh, bëri na li nga xamante ne du ñu dégg sax ñenn di ko mais askan wi di ko reproché maanaam ci wàllu li nga xam ne mooy éclairage public mais wàllu salubrité ak yeneen yoo xamante ne rek askan dañu jàppee ne ay manquement la yoo xamante ne mairie yi waroon nañ ci taxaw ñu gis na am na foo xam ne taxaw nañ ci mais am na foo xam ne gis nañ ni am na sooxe na li ni mel Ahmed Baye seen coalition ànd defar Thiès moom moo yore dëkk bii lan nga ci àpp waaw tout d'abord damay recadré waat sama sama sama frère bi xam naa ne rek. suñu suñu favoritisme moom mi bëgg a xeeñ quoi mi ngi lay assis. parce que ñoom. waaw am na maa ngi toog ak Ndiaga de bu PDS. mais pourtant de. ñoom Idrissa fi ñu leen ciblé mooy cible bi wax nañ fi ne moo rey Khadim Bousso wax nañ fi ne Idrissa daa sàcc 74 wax bu ñëw bu Idrissa wasin na ëmb na wasin na lañ Vous ñoom. loolu lañ ah, très bien mais non parce que non je suis de clarification. li may wax dafa am solo. ñoom indi argument gën dox ci pour loolu dafa c'est révolu. loolu jeex na mooy bi Idrissa di wax. na indi argument ñu wax ñu

di wax ne way yéen ñi ma bokkal parti yéen laay waxal bàyyi leen di gis sekk bi ngeen di saaga di ko wax di ñaaw indi leen ay argument moom mii toog fii tey moom mii toog fii tey moo a gën moo gën mu taxaw naan day saaga Idrissa ay tëj Mbaye Diouf parce que dafa bëggoon a dafa bëggoon a récupérer électorat Thiès Idrissa électorat xam nga ko may dafa ñëw Thiès fekk Mbaye Diouf muy joxe ceeb ñu tuddee ko Mbaye ceeb tanoor tànn dégg bi mu ñëw taxaw defar Thiès defar chantier yoo xamante ni ci ci ci un an quatre mois la ko Idrissa réalisé. muy les chantiers de Thiès ñëpp Thiès waaye teg seen bët moom mii moom mii fi mu ne nii événement bu jot soxna si da koy kott ci loxoom nii ànd ak moom dem promenade. <laughs> alors que dégg nga non non loolu Idrissa ko defar Thiès waaye. foo mën ci dem ci Sénégal foo mën ci dem ci Sénégal maanaam ñi dëkkul Thiès sax. dañuy wax ne non Thiès kat moo dàq ci Sénégal vraiment ginnaaw ni ah, donc nag dama bëgg ñoom <laughs> mhm. ñu bàyyi seen kanam nii ñu nekkee wax ju ñaaw ji ak xaste beeg xam nga te indi ay li ngeen di laaj ñoom ñu tontuñu ci ñu wax ci enseignant yi nga xamante ne ñu ngi marche ñu wax ci gerte gi nga xamante ne ñoom mbappat li ngay dégg ñoom ñii ñoo koy ñoo koy yàq ni ñu ko yàqee mooy dañoo fixé seen prix ci deux cent dix état bi ñi mu jox xaalis pour ñu dem jënd gerte gi dañuy ñëw jënd tuuti bu ñu jëndee ay ay ay vingt tonnes bu ñu jëndee vingt tonnes ci gerte gi ci ci 210 jël koo xamante ni comme ku mel ni yow jox ko xaalis nga ko demal ci mbapat ma mbapat ma fii nga xamante ni gars yi 110 dañuy jaay ay 130 mooy baykat yu xoox parce que gerte gaa yi xus ci àll bi gars yi jëriñu ko te bi ko Idrissa waxee au lieu ñu tontu ci dañoo dañoo wax xaste wax wax du ñaaw Macky Sall bi mu demee ci baykat lu mu leen wax woy bu leen wanteer gerte gi dinaa ko jël ala euh, gerte gi fu mu ak chinois yi. très mu ngi mu ngi jeex. <laughs>

ñu ñëw ñu ñu préfet defar budget bi conseil yi bloqué waat ko ñu defaraatal ko budget loolu amul fenn ci Sénégal. musul am ci histoire Sénégal loolu musul am ci histoire Sénégal man lii ma lay wax nii. musul am ci histoire Sénégal mais situation bi posé wu. tey dañu ko def ñun dañu ko def. mu xamee Thiès dañu ko def 2002. Euh, mhm. dañu ko def dañu envoyé délégation spéciale fii mairie Thiès. bi ci régime Abdoulaye Wade mhm. donc tey tey Macky Sall ñu ngi koy xaar mu indi yoon. ci loolu nga xamante ne tey mooy délégation spéciale bi ñu war a yónnee Talla Sylla te yónnee wuñu ko ko loolu nag mooy wane ne Macky Sall day làq doom di dóor doom mais mu neex ko ak mu naqari ko day daanu lii di sa wax rek. ñoom ah. deuxième tour sax duñ fa dem bu ñu sàgganee. Euh, Sénégalais pare nañ ci ñoom. très bien Assane lan ngeen di addu ci li nga xamante ne wax nga ko rek ci wàllu collectivité locale yi fii ci biir Thiès doxali yi. bon li ma koy njëkk a tontu rek. Sadio des Thiès fekk Idrissa Seck defaroon na ko ba mu baaxee. ñi fi bàyyi. ñoo raw ay kaña ci yàq ndax toppatoo wuñ ci dara lépp a yàqu ñoom ñoo raw ay kaña ñoom ñoo ko defar njabootam a ko yàqaat ndax ñoom ñoo yor gestion bi. ñam njabootam. mais maire yi fi bàyyi rosée fleur sax mënuñu ko roose fleur yi jëm ci mairie bi sax mënuñu ko mënuñu ci loolu ci chantier de Thiès yi la bokkoon lépp lépp lépp a dégradé wu donc loolu gaspillage la defar ba pare te sàmmoo ko moom bañ a defar a yam. comprendre beneen bi ci des mooy euh, li muy wax éclairage public su fekkee mairie ville moo ko yor ñoom li ñu war a jàppale ñoom ñi bloqué kii bi kay ñoom ñi bloqué conseil bi ci ndigal Idrissa Seck ñoom ñoo rey Thiès. parce que déglu dama ni dama ni ñoom ñoo bloqué. ñoom ñoo bloqué. man bloqué wu ma Macky Sall bloqué wu Ndiaga Diaw bloqué wu conseil municipal yu réew mi. Nous ñoo bloqué le conseil municipal bi dara mënu faa dox. kon ñoo raylu ceesuwaay ba mënuñoo am lampe yu leer agression yi kon ci seen responsabilité la nekk avons mu bëri mi seen responsabilité la nekk comprendre léegi nag ñoom man daal li gis mairie réew mi réussir ko public. buy jar cinq cent mille ñu déclaré dix neuf ak ay rond ci biir Thiès ci biir Thiès. ah non ban ban ban man loolu laa fi gis. commune yi bëri na est ouest commune est. Mhm. gis naa ko fa. ab jardin boo xam ne xaw ma ay ay ay ay tuyau tuyau type yi la ñu def ndox mi di génn fi mu doon soo ko laajoon facture lam lay wax bul xam mooy côté Kangé mi yooyu lañ fi soo ñëwee ci sama maire Thiès ouest. moom rond bu mu gis ra rakiste na ko defar ni lii dix-neuf million la lii huit millions la. lii lii bii lii. comprendre man daal man daal man daal Thiès Thiès Thiès mairie cees yi. man man man man man Thiès mairie Thiès su ma doon ñetti maire yi ñu fi bàyyi. taala moom xam nga koo dugal ci bi ndax mairie amul. amul ressource léegi da waroon a dugg gars yi bloqué ko téye ko kon kooku moom il est hors course mais ñetti maire yi man su ma ci doon du ma su ma ci doon noté Lamine Diallo laay noté maire bu Thiès noonu waaw au mu ngi def ay pavage nga xam dañ ciy teg sa bët soo demee kër Issa man du bokkuma ak moom parti gis naa mu def euh, miire miire armée yi gis naa mu réfectionné ay mu ngi def effort daal gis naa ville ba may liggéeyee gis naa que nit tilimul mu ngi set ñu ngi def ramassage des ordures par rapport a autres maires parce que duma ni ñoom ñëpp a bon bonuñu kenn bonu ci mais kee laa gis ni moo gën a nekk jàmbaar ci ñoom ma wax ko. alors euh, ci loolu ci wàllu collectivité man man de naqar laay am ak euh, mettit hmm. su ma xoolee léeg-léeg yenn artère u Thiès yi muy wàllu mbalit bi ak euh, wàllu électrification bi parce que tey. Euh, c'est vrai mairie ville dañu am yu bari yo xamanteni dañ ko fa jëlee euh, détaché ko yóbbu ci collectivité mais ba légui ñom ño yor éclairage public ñom ño yor également euh, ñom ño yor mbalit mi mais mbalit mi mom ñun ñep ñoo gisé du lo xamanteni dañ koy lu ñuy créer la mais ñun ñoo koy dundandoo maintenant benen bi ci dess moy maire euh maire yi war nañu aussi gën a góorgóorlu ci désensablement parce que choc yu bëri lu koy indi tey mooy suuf si nga xamante ni dafa nangu tali bi léegi chaque année dañ buñ désensablé suuf si day dellu si waat moo tax li mu wax tout ak Lamine Diallo très franchement boo dee xool pavage yooyu moom mooy freiner li nga xamante ni mooy suuf si mooy mooy stabiliser tali yi motax c'est pas parce que nak man damay exécuter marché manam damay damay dama ci liguey motax may wax loolu. Mhm. mais dama len di wo ñom manam manam lolu bi len koy wax lolu même au delà de pavé yi. <laughs> tay au niveau de la zone nord interpellé naa ci Lamine Diallo nee naa ko war war nañu dépasser tay fu train di di til di félé nit. Mhm. lolu dañ ko wara dépasser. Mhm. war nañu war nañu organiser de sorte que passage à niveau yépp am ay barrières ba nga xamante ni yooyu kenn dootu ko déggati donc nag ce qui fait que tey kenn ku ci nekk la ñu la dénk soo xamee sa feuille de route xam sa mission xam fa mu commencé xam fa mu yem ba pare nga nekk ci je pense que kenn du la attaqué kenn du la wax ne la liggéeyoo liggéey bi nga war li nga war a def defoo ko mais nag li ñu mënul accepter tey mooy ñu dénk la maire jox le budget la nga war a def defoo ko ba pare ne kenn du ko fi waxee très franchement loolu moom vraiment ñun Thiès ku ñu xam-xam ne yooyu boo ko fi bëggee def sax du du sotti donc nañu xool éclairage public nañu xool mbalit mi beneen bi ci des aussi tali yi nga xamante ni ay route la nit ñi dañ koy emprunter sable bi ci yéeg ñu ñu ñu koy désensabler su ko defee ñu mën a stabiliser li nga xamante ni moom mooy route yi. alors euh, très bien xam naa ni émission bi euh, ñu ngi ci euh, fin wu temps bi parce que kii bi bëri na lool Ahmed tey ci wàllu kàddu yu mujj. tàmm leen si kàddu yu xam waaw xanaa di remercier sama gars yi mais di wax ne sama maire Aliou Sow suñu maire bi nga xamante ne moo nekk ci commune Thiès Ouest vraiment peut-être dafa am problème de communication mais mi ngi liggéey liggéey bu mucc ay parce que xam nga poste de santé bu nekk Thiès bu nekk Thiès noonu Grand Thiès defal nañ leen foofu poste de santé même chose xam nga. indi na ay ambulance médicalisée xam nga fan yii passé may na ay ay chaise roulante yi nga xamante ne pour handicapé yi la en plus ñu ngi defar projet boo xamante ni pour defar si municipale la fii ci terrain terrain Kocc bi donc yooyu yëpp ñu ngi ciy avancé ñun ñun suñu slogan mooy mooy mooy liggéey lu bari te te tuuti wax parce que nag kilifa gi ñu àndal vraiment ku taxaw ñoom ñëpp nag dañuy saag di di ko wax lu nekk mais duñu wax mu ko ne mënul vraiment li ñu wax ni moom. donc na war nañ gën a mën a ci ci waxtaan bi. mais xam naa une prochaine fois incha allah. très bien li ma koy wax nee na Idrissa wax wax wax euh, jëf lu bëri wax wax tuuti non wax lu bëri Idrissa bojo bojo jëf tuuti waaw mais li muy wax ci affaire piscine municipale. même projet bobu ñun on est en train de de ñu ci maquette bi avec euh, Thiès Nord en collaboration avec commune Thiès Nord pour une piscine municipale qui xamni ci chantier 4444 euh, lañ ko prévoir donc en tant que Thièsois en tant que Thièsois donc ñu ngi euh, ñu ngi féliciter ñi ñu bokal débat bi mais aussi ñu xamni rek pour soigner kenn ku ci ne nak dañuy élections élection 2019

Euh, li dina permettre au moins ci soit yi nga xamanteni parce que amna ñu bari ño xamanteni ni peut-être ñoo ñëpp xam-xam gën ñu xam maîtriser li ñuy wax. Mm. mais amuñu accès ci li lolu motax may jox may jox toujours gëdd débat yi. Mm. wax toujours ne man bi ma woowee wax ma débat bi ak légui je pense bu matee une heure de temps ci la mm. ma jël au dépôt ma bàyyi sama liggéey ñew ce qui fait que mom ñom effort yi ñuy def. pour di jox cee choix yi di leen di leen tegal loo xamante ni mën nañ ko dégg ñun aussi dañu war a def les mêmes efforts. Mm. may lancer waale en même temps un appel à mes amis responsables politiques. que bu leen waa Thiès info soxlawee wala beneen site internet wala rajo yeeg télé yi maanaam journaliste yi. nañuy bàyyi naju yi tey jóg. Mm. wala di wax ne du ma rek kii parce que man ak moom bokkuñu niveau wala yooyu nañ ko bàyyi. Mm. parce que li am solo. mooy li ngay wax muy génn yow ci sa làmmiñ di dugg ci nopp askan wi di ko dégg loolu moo ci am solo le reste pour man ay détails la hmm. donc ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di encourager encore une fois ñu bokkal plateau bi di ñaan yàlla bii bañ a nekk suñu mujj daje yàlla nañu yàlla dajalewaat ay yoon te lépp lu ñuy wax mu nekk njariñu réew mi nekk njariñu Sénégal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Mboké yi xarit ñu doon suñu émission confrontation ci Thiès Info ak Thiès TV ñu àndoon ci ak euh, Mouhamed Baye bu parti di responsable jeune mais également Assane Mbaye bu euh, parti euh, APR ak euh, Ndiaga Diaw bu parti démocratique sénégalais euh, di leen di rafetlu rek di nga xamante ne moom mooy kàddu yi fi jóg euh, lépp rek dafa jóg rek pour mun a jox askan bi li nga xamante ne moom la soxla maanaam du ko jox ay xabaar yu wér te wóor mais également permettre ko mu mun a dégg ku ci nekk rek lu nekk ci xelam ak xalaatam di leen jox di daje ci beneen numéro incha allah.